221 Diaspora 221 pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées jërë ngeen jëf internet yi bàyyi xel diaspora 221 di am mbégte jàkkaarloog yéen euh, fii ci diaspora 221 waaye ginnaaw loolu tamit di ñaan yàlla defal ñu jàmm def ko ci askan sunu gaal di wax nag baal ñu ak yàlla nañu yàlla boole baal ci koor gi nga xam ne dugg nañ ci yàlla def jàmm ci réew mi euh, tey nag ñu doxantu ñëw fii ci diwaanu géejawaay ku wax géejawaay di nga wax Bou Siteu euh, bu Tivaouane Peulh Bou bu banlieue bi tey nag ñu nar a waxtaani lu bëree bëri rawatina ci weeru koor gi ñu fekk ko fi nga xam ne foofu la ko jox waa koñ bi mu loo xam ne Sénégal ñu bëri dañ koy def def lu am solo ci li nga xam ne moo nekk ci euh, population waaye tamit dinañ waxtaanee xew-xewu dëkk bi maanaam actualité politique waaye tamit mi ngi waajal combat loolu yëpp bu ñaawul bi nga xam ne mooy di sant sama ñaari waajur di sant waa Géejawaay bu baax waaw di a a baax di nuyu gaa yëpp xam di jégalu ñëpp tamit waaw di baalu ñëpp ak quoi si weeru koor bi ñu nekk nii xam waaw di wax ni daal waa nañ ko woor si jàmm daal. waaw ñëpp am jàmm. xam nga waaw di nuyu gaa yëpp nag nuyu waa Tivaouane Peulh xam nga. waaw di nuyu waa Cité Namara xama Daaru Salaam beeg ñëpp. waaw Tivaouane Peulh maa ngi nuyu ñëpp di nuyu autorités yi fa nekk ñëpp. macha allah waaw di nuyu waa Guédiawaye bu baax di bëggee tamit sama gars yi ñoom Tony xam nga ñoom Diop. xam nga waaw mafia bi waaw ñoom Marcel ak Salalaaw Issa. xam nga mm-hmm. mm-hmm. daal booy mm-hmm. koñ bi xam nga di leen bëggee bu baax a baax a baax. macha allah macha allah ku wax koor ndawu Sénégal yi dañ ciy def lu am solo maanaam teg café teg affaire yi génne seen i moyens ak ñeneen nit yi ñëw jàppale leen di joxe ndogu ñu fekk seen i morom di defee parce que koñ boo dem am na porteur de voix nan ngeen koy defee fii ci koñ bi ci weeru koor bi. waaw ni ñu koy defee rek muy chaque année la daal xam nga mhm. ñëpp nag ñu dooleel ñu daal parce que xam rek affaire moyen la daal. Mhm. waaw te mhm. gis nañ gars yi ñu jàppee baax a baax. autorité ak ñëpp di si woo suma papa Lat Diop Omar Mbaye mhm. waaw di ko woo sama ndogu yi kay le 7 avril bi waaw macha allah donc yéen chaque jour da ngeen di joxe ndogu ci koñ bi le 7 mooy nekk nag bu mag a mag bi am cant avril bi waaw ok waaw boobu moom mooy bu boo dañ ay cant quoi mhm. waaw defaale ay ndogu yoo xam mooy loolu ko waa affaire dina gën a yaatu quoi macha allah boobu mbaa yaa ngi ci koor gi waaw man maa ngi si koor gi bu baax maa ngi si koor gi waaw maa ngi si koor gi de ah. waaw boo ma xoolee nii da nga xam ne ah. koor gee ma jàpp moo tax nga sol say verre waaw ah, gis nga gars yi seen verre baaxul sa verre moo baax non sama verre mooy baax baax bi ñaar nga ko jëndee non bii moom gars yi ñoo ma ko waaw on regarde ñoo ma ko lii waaw waaw on regarde on regarde waaw on regarde xam rek waaw ñoom ñoo ma ko lii rek xam di jaay ay verre yi mhm. mool mhm. ay marque verre la ñuy jaay quoi waaw jaay ñu ay cing-cing xam nga rek. bii boo xoolee da nga xam ne bii marque bu baax bi la. comme sama yos rek sama yos dafa <laughs> mm. képp kuy takk verre rek te verre mm. jàpp la rek. xamal da ngay toog xaar xam ne verre. Mm. sama lug la quoi non sa la sax. waaw waaw un regard maa ngi bëggee bu baax a baax. macha allah macha bu xam naa dañuy dugg rek direct ci li nga xam ne moo nekk actualité euh, ci réew mi parce que ndaw nga am na ñu nekk sa ginnaaw di la bàyyi xel euh, tout récemment gis naa nga def benn sortie euh, di ñaan jàmm ci réew mi ne kenn duñu taalal suñu quartier bi ñu am boobu nga def lan moo taxoon nga génn def ko yàgg say morom parce que bëri na polémique. waaw non xam rek Sénégal maanaam léegi wax wax fi dëgg maanaam neexatul. léegi maanaam nervi sax da ngay wax sax di woote si jàmm sax ñu ne la nervi. sax yaa ma gën a xam <laughs> Sénégal daal maanaam dëkku jàmm la. Mhm. yow imagine a léegi yow toog bi ñu toog nii ne rek léegi yow bu ay boo jigéen fii ne dañuy taal. Mhm. yow est dina la neex. non non mais dañu waxante dëgg rek. Mhm. mais Sénégal xam nga rek mooy doxee noo xamante ku ñu xam xam ne maanaam si réew jàmm la ñuy dox waa mm-hmm. Mm-hmm. waaw man wallaahi fii ba ginnaaw suba man xama rek maanaam si jàmm lay dox mm-hmm. te buusita koo xam-xam ne buusita maanaam si jàmm lay dox mais imagine toi kaa la ñu taal mais loolu mooy lan donc yow àndoo ci gars yi li ñuy daan nañu jug dem taal nañu jug dem yàq waaw mais ama rek maanaam léegi boo nee bu leen taal sax ñu ne dafa contre Sonko te Sonko koo xam xam ne man mhm. Sonko maa njëkk a génn taxaw défendre ko ok waaw problème mu ceeb bi gars yi tojoon osan yeeg yooyu xam rek mhm. mooy loolu Sonko doomu Sénégal la Macky Sall ñoom ñëpp mooy loolu mhm. maanaam politique moo demee nii rek yenn saa da ngay woote si jàmm sax ñu ne la fee nga far léegi yow boo boo boo kiiwee nga waxee si côté bee waa Macky Sall yi ne la fii nga far man faruma fenn mhm. waaw man am na ñoo xam ne sax maanaam di jënduwuñ sax buusi te yow foo faral ak koo faralu si ay politique te parce xam nañ ni boo bi Sénégal moo ko ñor jeunesse bee moo ñor mhm. man ñii di wax ni man ñoruñu ma de man jeunesse bee ma ñor. Mhm. waaw nu ndaw ñi amee liggéey. Mhm. waaw te boo nekkee pour loolu fu na pour man war nga wax si si si. luy doxal réew mi maanaam luy doxal réew mi quoi. mais Sénégal nag maanaam léegi wax fi dëgg neexul. waaw maanaam yow boo boo faree si côté Sonko sax nga wax sax. waa Sonko yi bëgg la. boo génnee daal maa moo moo doxee noonu quoi mbir jaxasoo mais mais réew mi fi mu toll parce que ñun ndaw ñi fu mu ne nii ñoo nekk yaakaaru ëllëgu réew mi euh, ku waxul si nga bokk am nga droit nga wax sa xalaat ci réew mi mais ndaw ñi nga xam ne fu ni kenn ku nekk yaa ngi fere ci benn pàcc waaye jiital violence si sa affaire est-ce que loolu tamit dina jëmale réew mi kanam maanaam violence bi. waaw violence bi mooy comme lu ma la wax rek maanaam violence dafa war a dee daal dafa war a jeex Sénégal. Mhm. Mhm. waaw man gëw ma porte de voix buy toog di woote violence. man gëw ma loolu. ko mhm. loolu doo porte de voix yow yeekatu fitna nga. waaw pour man nit ki maanaam xam rek Sénégal dara yàggul quoi te nay rafet. waaw man man du ma ñu ñuy fay naan génnal wax man kam moo fa ñemee jox sa xaar naa ma ay génnal nga wax si côté bi nga farfee mm-hmm. mais Bou de si jàmm lay dox mm-hmm. mais kon nañuy dox si jàmm quoi man gëwuma yooyu mm-hmm. man gëwuma kuy taxaw di fay mbër naan ko xoolal waxal fii waxal li man gëwuma loolu man loolu loolu affaire du kanaara la affaire du defeñaa la. te buusira koo xam xam ne buusira man doxuma si yooyu. man aw man bàyyi ma nit a xel man xamuñu man mm. Sénégalais rek ñu ma bëgg rek ma léegi ñi ñenn ñi jël mbir moomu di ko étiqueté sa kaw naan buusita nervi la dañ koy fay muy génn waaye tamit dañ koy fay pour muy wax. dañ ci cité sax ay turu kilifa ci nekk ci nguur gi ne yow nguur gi yaa na ànd nervi nga. non xool doxul li ñuy wax man man ku xam-xam ni man sama man sama profil rek pap sama papa la Diop moo si nekk. te ba ma koy def profil coow li yëpp amagul woon. Ah, kon léegi anamu kooku suma papa la ba pare kooku doomu géejawaay la. Mhm. man la Diop man la Diop ñeme na maa kii naa ma waxal si kii. kon man man kon man dëgguwuma. Mhm. mais kooku suma papa la te nit ku baax la la Diop doomu Géejawaay la. ok Lat Diop da daan doxee enseignant bi fii da daan dox quatre fois si journée bi enseignant bi diggante kii maanaam dafa liggéey dafa tarbiyoo. kooku li mu am yàlla moo ko xam nga. waaw dafa dafa tarbiwu quoi. ok bokkul ak ci ñi nga xam ne dañoo jékki-jékki rek fële rek mu am deme waaw kooku suma papa Lat Diop maa nit ku baax la quoi. Mm-hmm. waaw te gis nañ social yi muy def bi man Géejawaay fii kam moo fi dimbalee nit. amul donc kon mais sunu papa Lat Diop mooy. def fondation yeeg yëpp mais mhm. mais fii ku fi baax ñu wax ko. ok yeah. ok kon noonu la demee donc li ngay wax ci lu baax ci sa doom moromu doomu aadama moo waral ñenn ñi jàpp ne nervi nga. non nervi. man man man man aw ma kattan bu ma dóoree an askan wi sax. non mais nervi du do du doole. mais xam nga maanaam nervi léegi. maanaam baatu nervi léegi dafa yomb tuddee leen nervi loolu dafa ma jaaxal mbëri. non maanaam. Mhm. yow booy wax nii sax day mel ni sax nit ñi sax buusita lañ lañ lañuy jiiñ nervi. dëgg la te maanaam mbëri lañ wax. Mhm. man mbër laa. mais am na mbër yoo xam te ne ñoom dañoo cuub seen drapeau ay défaillant lañ loolu da nga gis naa dañuy dóor askan wi man mbër bu ma si dajal ngay dóor askan wi dootoo ko defate di nga xam ne Bou Siteu nervi la wala wala nervi silence la wala nervi public mais ñoo ay mbër lañu gis na ko ay yenn pata yenn pata yu pata yi ay wallaay ah. nekk ci ñi la ñuy di leen di leen di leen xam rek di leen ay journée trente mille ngay dóor askan ah nervi bu ma si dajal ngay dóor askan wi dootoo ko defate ok waaw man man maa maa nekk ni ko xam déggul ma man côté politique man du ma bëgg sax di wax si côté politique te parce que maîtriser wu ko te parce que man bu sita si jàmm lay dox mhm. mais boo waxee si jàmm sax léegi ñu ne la nervi nga yee xam naa foofu dañ koy tëj gaaw dem si wàllu làmb ji eh, point bi may tëjee rek mooy ñu ngi demaat ci procès bi nga xam ne moo nekk Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko mais trois jours yi ñu ñëw nii rek euh, depuis mun nañ ne suba sax lay tàmbali gars yi gisaat nañ ne dañuy defaat ay manifestation dëkk bi ragal nañ mu yëngatuwaat waaw xam nga maanaam xam nga maanaam Sénégal léegi dafa am ay ñoo xam dañuy manipuler ñu ñi di manipuler maanaam di nekk si ci internet bi di di di publier loo xam te ne yow doo fa taxaw. Mm-hmm. maanaam Sénégal dama bëgg léegi ñuy yeew gis nga mm-hmm. gars yi toog di di di influencer mm-hmm. jeunes yi di influencer jeunes yi naan leen ay nee ay nee wallaahi ñoon ñoon duñ fa taxaw surtout te bu ñu bu koo si dégg rey nañ ko ñoom ñoo njëkk a génn ñoom laa si internet bi rek li ñuy génnee wax li ñuy wax. après dugaat toog ay bande internet lañ di mm-hmm. influencer jeunes yi. Mm-hmm. mais jeunes yi yeewu. Mm-hmm. kañ xam ne ñi nekk si TikTok bi di influencer ñooñu. bu taq-taq amee duñ génn. ñooñu am na yéen journaliste sax yéen a gën a sax. yéen a gën ñenn ñu quoi xam ma rek. dëgg la c'est vrai. barke alxuraan. maanaam yéen sax yéen a gën nekk jàmbaar sax si réew mi te parce que lu am di ngeen dem taxaw di jël affaire yi. xam nga te ñooñu suñu vie mu ngi en aussi. mais parce que bëggatuñu ñu liggéey ah. mais xam nga rek ci ñaari cas yëpp ku nekk ñuy saaga ku nekk ñuy xas. mais maanaam liggéey bi moo laaj loolu. lii peut être daa benn temps la nii rek. mais après day jeex. Mhm. waaw fii maanaam ku ci nekk sa carte nga yor. Mhm. waaw Sénégal daal ñuy ñaan jàmm ñu teg si ci xam. amiin amiin amiin waaw ñu ñu teg ko ci loo xam ci fair play ñu bañ a nekk xam nga di di di dóor seen yeeg affaire yooyu man góoma loolu parce que ma Sonko yëpp ci dëkk bi lañ dëkk war nañ ñaan jàmm ci mu ngi noonu léegi nag ñu dugg ci làmb ji yaa ngi waajal combat ñu ngi nekk ci koor gi nan ngay waajalee sa combat ndax gi entraînement yi day bokk comme ni ko doon defee avant koor gi waaw entraînement baax parce maa ngi tiwaan pël nekk suma entraînement xam nekk suma bopp quoi waaw parce que changement am na waaw mais xam rek mooy mooy ku mu la wax rek liggéey mooy li mooy moo wóor daal xam nga mhm. nekk tuwaan bool nekk mhm. suma ay entraînement foofu. Mhm. waaw bu kiiwee ma ñëw fii waaye nekk si booy bu kiiwee ma taaraat sama moto dugg xam nga. waaw nekk suma bopp quoi xam ne affaire yi maanaam. waaw liggéey rek a wóor daal. Euh, Ramadan nga am. waaw Ramadan laa le 28 mais di si woo ñëpp di nuyu petit petit production moo ko tëgg. xam nga waaw jour combat bouse bi la ak Ziza xam nga. waaw ñun ñu bu baax a baax a am nañ combat ñu ngi koy préparé. Mhm. te gars yi dinañ gisaat Bou Siteu bu bokkul ak bu ñu doon gis. waaw yee gars yi dinañ gisaat donc mun nañ xaar lu bees ci Bou Siteu ci fecc ci bëre waaye ci ci ci ci mobilisation yi muy def ci ay fansam. waaw si mobilisation bu baax a baax a baax combat bi sax ngay gën a gis mobilisation boo xam mosoo ko gis. Mhm. waaw dafa sax combat bi gars ñu ngi koy préparé bu baax a baax a baax. incha la foo xam te ne waaw gëjoon naa fa bëre waaw nga am combat sax gëjoon naa fa bëre stade bu maa jun le 28 mai. Mhm. waaw di si woo waa diaspora yëpp te gaa ñu ngi koy préparé baax koñ beeg gaa yi ñu ngi wàcc. Mhm. dafa fekk ne rek si weeru koor lañ nekk. waaw xaw a sol weeru ramadan xam nga mhm. dëkk bi xaw a def silence. noonu la demee na mais ñu ngi préparé bu baax a baax. mais mais mais mais ci làmb ji ba tey rek yow géejawaay euh, gis nañ ne. Euh, Lac de Guiers la ñuy njëkkee sax gëjoon na am combat am na combat te ki amal combat aussi sa nit la euh, diggante Siteu ak Lac de Guiers diggante Siteu Lac de Guiers. waaw gis naa ne taxaw na. mais mais affaire yi loolu la affaire yi liggéey la. Mm. xam nga maanaam ñoom nañ liggéey daal. te man ñaan naa yàlla tamit dem bay fayeeku ñoom kase yu ñuy fayeeku. ñoom ñooñu waaw te parce que bu Siteu ndaw la. nekk si yoonam pourquoi pas. waaw pourquoi pas war mu mën a mooy loolu. Mm-hmm. mais li mooy loolu liggéey la. mais mm-hmm. Siteu bu bu bëriwul ak Lac mm-hmm. mais day perdre. Lac de Guiers bu bëriwul ak Siteu mais day perte ñoom ñaar ñëpp ay mbër lañ ay jeune lañ. xam nekk ci làmb ji. mais dañoo war a bëre. yee dañoo war a bëre te parce que xam rek. waaw moo loolu daal. yaa moo leen boole quoi. waaw lamb moo leen boole dañoo war a bëre. mais tey jii yow boo daanoo Ramadane kan ngay laaj ci mbëri yow. par exemple tey boo amoon ndam ci Ramadane waaw su ma amoon <laughs> dama daan doon moom xam nga man maa nekk Bou Siteu man maa nekk mbër boo xam man damaa wàcc sax jël booy yi. <laughs> waaw mais maa am xam nga man laa dugg si làmb. waaw mais est-ce est-ce li nga ci war a nga ko ci. waaw concentré wu naa parce que xam nga rek maanaam jàppale bi demeewul noonu. ah ok waaw waaw gis ngeen mbër. mbër dafa métti de xam rek. dund bi dafa wax ji mun na bëri nii rek. Mm. mais jàppale bi jàppale bu tax ñuy wax jàppale dafa des. Mhm. mais xoolal fii mbëri fi am jàppale dëgg dëgg jàppale bu tax ñuy wax. Mhm. waaw jàppale nekkul bu Siteu am combat nga may ko un million loolu du jàppale. waaw jàppale bi war muy maanaam mbër mi si préparation am. Mhm. si ni muy nekkee si ni muy dundee. waaw maanaam nekk mbër dafa métti yombul de. moo tax xam nga rek moo tax su may toog naan 2016 la dugg si làmb am ñoo xam di ma xool naan. 2016 ba léegi ah. xam nga man ba may dugg si làmb booy bu ndaw laa. yee ba muy dugg si làmb lu ndaw laa. pourtant ñu bëri dañuy laaj sa diggante ak Laurent Ndiago nañ ko tëggaat wala beneen booy bi keneen ki beneen Ndiago bi ñu bëri dañ koy laaj. waaw non xam ma rek bu si de maanaam man maa nekk ko xam man képp ko ma siy bëre làmb dalay xam. Mhm. su ma bërewul ak yow nga dem bëre keneen du bokk parce que maanaam ki ngay bëral la. waaw hmm. mbëru réew ngay bëral. Hmm. waaw man du ma mbëru koñ de. Hmm. mbëru àdduna laa man mbëru askan wi laa. ok mais mais mbëru mbëru àdduna nga mbëru askan wi nga mais làmb ji ñu gis ne dafa commencé woon yàqu benn instant. lan moo waraloon loolu mais ci côté violence bi moom ñëpp sax ñaawlu nañ ko. mais benn côté tamit dañ ne kumba am ndey kumba am bàyyi dafa am ci làmb ji. maanaam maanaam ñii ñooy ànd ñii la ñuy jox combat ñii duñ jox combat. waaw muy loolu moom yàgg nañ ko fi génn di ko kaas. Mhm. muy làmb ji gis nga li fi am léegi. dafa metti mhm. waaw da ngay gis sax ko tëgg journée bu mag dem xëcc benn yànku ak benn paulis. xam nga fay leen ku nekk 500000. mais loolu te mais mbër bi yeewu fajar teel. mbër boo xam te ne kañ la dugg ci làmb nekk ci làmb di di di xam nga. Mhm. waaw nga ñëw tëgg benn làmb boo xam ne ñëw dugal ci ñaar ñoo xam ne fay leen ay millions ñoo xam duñ sax ay mbër ay seekat théâtre lañ. xam nga léegi yow fàtta nga ne sax mbër bii nii chaque jour ndeysaan mu ngi daj lu métti mhm. di yeew fajar di di yëg si diini di dugg si saali di daj lu métti pour bëgg am combat mhm. xam nga mhm. loolu loolu moo lay wax ne làmb ji maanaam dafa am kumba am nday ku ak kumba amul nday te loolu maanaam loolu day yàq làmb xam nga rek maanaam lamb li si nekk lépp kenn mun mënu ko wax waa lamb li si nekk lépp ba. dafa bëri xel quoi waaw dafa bëri daal ay kii. waa di wax ne nag waa CNG tamit dina wax ne maanaam nañ nañ di ñu weññi daal ñu baal ñu dër bi noonu quoi ñu siy toog. te parce gis nga violence bi ngay wax. ok pour heure bu amee dara bu amee gars yi damm saisi di sànni. Mhm. mais saisi yooyu dafa ànd ak weñ. Mhm. man combat Sa Thiès bi am na ko xam sama karam lañ ko sànni saisi mais weñ moo ko dal ci bopp bi. moo oh. loolu benn affaire barke Alxuraan. Mhm. ñu bëri jëlee fa ay blessure mais kon léegi wax ja xam nga lan la maanaam ñu dindi saisi. ñu dindi weñ yëpp ñu bàyyi si dër bi noonu gars yi si toog. mais xoolal stade Demba Diop gars si dër bi lañ daan toog parce mu nga gis nit sànni am loo am looy sànni mhm. boo ñu si loo xam ne nii boo ko nee nii sax mu wekkee mhm. mais loolu man loolu loolu day yàq làmb mais ci combat boobu noonu polémique bi ci amoon diggante Reug Reug Sa Thiès gis nañ sax yow nga def ci ay sorties ak yooyu noonu yow dafa mel ni da nga faroon benn côté man dama faroon comme ni nga doon defee sa communication parce que yaa ngi si doon wax bon du man mais ñenn ñi ñooy commenté ne bu dafa am fu mu faree si combat kan. rëg-rëg beeg Sa Thiès. Sa Thiès laa faroon man dama faroon si Sa laa far. ok Sa Thiès ba muy tuus maa ngi woon si tuus bi mais 100 pour cent bee jóg. 100 bi moo feeñaat quoi. 100 pour cent moo génn. moo jóg. waaw di wax ne rek gis nga keroow nu mu demee moo loolu. Mhm. bëre nañ am ndam. Mhm. mais arbitre bi juum. waaw loolu la waay surtout arbitre yi bon ñu ngi ko doon mm, clash di ko wax yenn wax yi mais nit tamit motul aussi tamit. yaa nit motul mais xoolal Malick Ngom combat Modou Lo mais xoolal dafa safee bakkan. Mhm. te kenn débat aussi kenn commentaire aussi mais xoolal keroog ba arbitre bi juumee ku nekk di wax. Mhm. kon léegi làmb lan mais kii kii. arbitre bi sëfee bakkan sax maa la sama waay kenn du ko lijjanti léegi arbitre bi def erreur nga dig mooy loolu. mais arbitre day juum. Mhm. yee maanaam lamb li li si nekk léegi kenn kenn mënu ko wax dafa mhm. met mhm. mais mais dafa mel ni nag Bou Siteu dafa dégg waxu fan si ñenn ñi bu demal entraîné ñi parce que yaa ngi instant bi ñu ngi gis ne macha allah changement mi ngi am ci bu. non changement mi ngi am te parce que xam nga rek maanaam. ñaata séquence maama nit ñee ma sonal rek mooy waral sax gaa yi sonal quoi waaw xam nga rek euh. dinaa am ay deux séances presque ci koor gi nii waaw si koor gi nii instant yi ñu dogoo ba pare su ma mm-hmm. demee daa am ñoo damay ànd ñoom ñooy nekk si maaro bi si diini xam nga salle de musculation bi lépp ñu foofu noonu mm-hmm. waaw mm-hmm. mooy loolu di si ànd gaa mooy loolu am ay séeréer yu nekk foofu dëgër bopp séeréer dëgër bopp wara instant yi moom <laughs> yàlla bu baax du ma wax saa du ma sax gaaw a wax di catu sama bopp. ram daan nga am xaw ram daan dégg naa mbër la de. non mbër la keroog rek doon bëre. Mhm. le 18 bi passé rek bëre na. waaw rek. Mhm. waaw gis naa nu mu bëree bëre tapet lay bëre te man. Ah, bëre yooyu ci ma <laughs> te dafa ragal ku boo xàccee sax mu gëmm. daa ragal ku waaw xam rek. yaa ma gën a xam ñu koy baay xel bu baax ñu ngi koy suivre. incha allah moo loolu. kon mais mais boo jógee ci Ramadan mun nga laaj Gris Bordeaux comme yaa ngi ko doon laaj wala frère Gris bi Gris. non ñooñu moom dañuy xaar instant yi maanaam ñooñu. Ah, wallaahi ñooñu man maa leen xanaa man sax maa leen yëkkatiwaat. ah waaw ñun maa leen may tour nii. ñaamee ñoom Gris tur. wallaahi Gris 2 ka moo ko déggoon si làmb maa toog TFM tudd ko àdduna gën koo xam. gën a bàyyiwaat xel giri 2. Mhm. waaw te parce que xam nga rek li ma def ci làmb def ko si làmb. Gris li ma def si làmb def ko si làmb. <laughs> waaw xam nga man li ma def ci làmb Gris defu ko si làmb. li ma def si làmb rëg-rëg defu ko si làmb. mais ñooñu bu ñu leen booleen tey ci làmb ñooñu tey métti de. non wallaahi na lay méttee ñooñu samay moroom lañ. damay préparé ñëw taxaw. gën gaa nañ toll. mais nuñ tolloo xam nga yaa ngi may xool ni mais bu taxawoon nii ba si damay préparé ñëw taxaw. ah ma rek affaire bi lépp préparation la. waaw fii kenn mënul kenn. Mhm. ñooñu man damay waaw man damay dalante ñu ëpp fit ñooñu. Mhm. di dalante ñu gën a wow ñooñu mhm. kon ñooñu man daw ñu sama yaram quoi. affaire bi fit la quoi. affaire bi fit ak jàmbaar. ak ak loo xamante ni. exta xam nga rek. expérience expérience boo xamante ni moo nekk si man. gars yi si ñoom yee ah, ah. noonu la demee na lool ci weeru koor la ñu nekk ah. ah am am gisal ma jëlal ñu waajalee kafe gi. am solo ñëw. waa géej waaye dañ ko bëgg. gis a ñëw sax mais bu doon ngoon gi la nii fii day fees del gars koy génn lu neex du lan moo nekk kàddu gu mujj gi parce que duñ tee kenn ci koor gi mm-hmm. dañuy waxtaan waxtaan bu gaaw rek mën a jox internet li nga xam ne ni ñi dañ koy bàyyi xel. waaw koor gi moom li ñu ci kii rek muy maanaam. Mm-hmm. waaw di wax ne daal koor gi na gaa yi muñ rek te xam ne li des bëreetul quoi. waaw na yi muñ te xam ne li des bëreetul. Mm-hmm. te maanaam gën a jàmmuwaat yàlla quoi. surtout waaw moo loolu gën a jàmmuwaat yàlla xam ni maanaam. Mm-hmm. àdduna daal lii la rek gis nga boo wooree doo def lu bon. doo xool lu ñaaw. kon koor gi buñ si jógee tamit nañ continuer noonu. xama rek di bàyyi di waxalante lu ñaaw xama oh, oh. moo loolu ñuy bëggante quoi moo loolu yaa ma gën a xam mais kontaan nañ waaw moo loolu mais maa gën a kontaan bu baax kontaan nañ trop waaw di bëggee gars yëpp nag di bëggee tamit waa xama deux Diaspora deux cent vingt et un bi xama rek mm-hmm. yow yaagoon nañ déggoon te sax avant koor gi mm-hmm. mais eh, gis nga maanaam borom bi. tey la ko yàlla dogal waaye c'est vrai waaw di wax ne maanaam waaw yàlla na jàmm yàgg daal. waaw di bëggee gars yi tamit di bëggee tamit sama gars yi xam nga. Mm-hmm. waaw ñi nga xam dañuy dooleel Bou Siteu. Mm-hmm. waaw ñooñu maa ngi leen bu baax a baax a baax mm-hmm. surtout maa waa diaspora bi gars yi xam ma seen fay quoi gars yi nekk si diaspora bi waaw gis nga. yaa ngi koy laal rek gis nga xam nga rek <laughs> maanaam mooy loolu daal. gars yi ñoo siy jàpp. waaw di bëggee gaañu di bëggee xalil suma doyen bi borom sukaa beg uh-huh. waaw xalil maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Tidiane Bàcc Seera di nuyu jabar jabaru xalil borom baax xama di uh-huh. nuyu bébé Faatu uh-huh. xama ñoom ñëpp maa ngi nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit xama waaw ñoo xam te ne maanaam dañuy sonn si buus surtout quoi basketo waaw basketo maa ngi koy sant bu baax grand boo xam maanaam day bëggee buus surtout quoi nekk ginnaaw raay waaw basketo maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax di jaay foofu ay kulus ak gaa yëpp waaw di nuyu tamit ñoo xam te ne maanaam buus surtout yow xam nga ni sax yow Sénégal la quoi c'est vrai waaw Pape Babou Cissé waaw Pape Babou Cissé suma papa suma lépp maa ngi koy nuyu xam nga di nuyu ñoom yaali borom nag yi xam nga waaw maa ngi leen sant bu baax a baax a baax di bëggee maanaam képp kuy dooleel Bou rek mhm. di bëggee waa Tiwaan Pël suma papa Basirou Ka gis nga fan yi rek la mu may foofu terrain Basirou Ka maa ngi koy sant bu baax mhm. responsable politique la quoi nekk Tiwaan Pël di def social yoo xam ne maanaam di jàppale jeunesse jeunesse Tiwaan Pël yi mhm. waaw moom Basirou Ka ñu ngi koy sant bu baax waaw di la nuyu baax di bëggee nag waa képp kuy bëggee Bou Siteu rek ay gars yoo xam parcelle lañ nekk. macha di bëggee Bou Siteu di la nuyu bu baax fan su Bou Siteu yi Pikine noonu xam waaw di bëggee gaa yëpp daal di bëggee gaa yëpp waaw su ma limee daal damay juum kontaan nañ maa ngi nuyu daal képp kuy bëggee Bou Siteu bëggee sama gaa yëpp waaw di kontaan bu baax a baax a baax acca mu ngi noonu bu ñu ngi lay sant di la gërëm ah di gërëm tamit sa waay sa gaa yi fekk fii nii ah di leen ñaanal jàmm mais si tamit yow di la ñaanal jàmm gis ngeen ah Bou Siteu moom bu Géejawaay la bu euh, Sénégal la waaye bu Tivaouane Peulh la acca mu ngi noonu di remercier bu baax a baax suñu partenaire euh, Tap Tap Sen bi nga xam ne moo xew si jamono euh, nekk transfert d'argent Tap Tap Sen sa xaalis si sa poche neex nga koy defee sa téléphone lool waaye tamit di leen gërëm bu baax a baax di gërëm tamit Cheikhouna Carrefour Business ah, di ko masaw bu baax a baax li ko dal tout récemment gis nga am sa weesu foire ah, mu nekk lu métti métti mais Cheikhouna gaynde la ah, a a sa téléphone iPhone ak lu munti doon wala Samsung boo ko yoree rek yor sa xaalis sa téléphone fu la neex nga koy envoyé si Wizall wala Orange Money tap tap seen bi xew ci jamono remercier bu baax a baax équipe diaspora 221 Amadou ci technique bi c'était Paco à la présentation ñu jox dox daje ba yoon jërë ngeen jëf mbokki bàyyi xel diaspora 221